رديت عن المولى تعالى الذي ربى وادي وأغناني وأكرمني ربا رديت عن المولى تعالى الذي ربى وادي sant Cheikh احمد الخدم ñu ngi fii si Buqatal Moubarak pénc mi nga xam ne Cheikh Ahmadul Khadim moo ko sanc wàcc fii di fi liggéeyal sunu borom si ndigalu Seydina Mouhamed foofu mooy fan fii mooy njaareem ñu ngi si ëtt bi nga xam ne fii la Serigne Touba nekk 1912 waaye fii la Serigne Touba wàcce bokk yi ñu ngi ànd nag ak ki nga xam ni sëñ Moustapha la Karam Mbakke kooku buñ ko waxee wax nañ sëñ Muntaqa kan mooy sëñ Muntaqa waaye kan mooy sëñ Moustapha la Karam ànd nag ak Serigne Moustapha Abdou Dot waaye nag ànd ak ki nga xam ni ah bu nu ko tuddee tudd dëkk bi. muy président Aline Camara délégation boobu la ñu àndal ak monsieur le maire bu Tooki njabootu sëriñ Moustapha la Karam doom ci Serigne Moustapha la Karam di taalibe ki nga xam ni ah boo ko gisee muy dem bu laaj fan la jëm liggéeyal Serigne tubaa rek ko ko ñor bokk yi fii nag mooy ëttu Cheikh Mamadou Bachir kenn mooy Serigne Bachir mooy ki desoon njaareem di liggéeyal Serigne Touba ki nga xam ni moo jël baayam bu baax ba Cheikhul Khadim yóbbu Touba si ndigalu Cheikh Modou Moustapha waaye fekk nag El Hadj Fallou ah bokk yi lii moo xewoon tey si ziar bi nga xam ni fi lan fekk ki nga xam ni mooy donay cheikhul xaddim cheikh mouhamadul muntaqa yàlla na fi yàgg te wér borom jëf ju ji ah kooku nag bu nu ko tuddee kooku mooy ki nga xam ni moom la lislaam bëgg kooku la lislaam reconnaître ah looluy dëgg de bu nu ko waxee du àll dëgg la xam nga lu tax maama ma ni malaka ni dunyaa wa oxra sama lii laa wax Serigne Touba rek lan yaakaar Serigne Touba Cheikh Mountakha ngi noonu kooku jóg mooy nag Serigne Moustapha Abdoulou Dott mi ngi noonu jóg waaye nag ñu ngi ànd ki nga xam ni 2024 mooy mbërum njaareem docteur Aline Camara ah njaareem am na mbër de waa jaa ngi ni suñu biir ziare si nag Serigne Touba Cheikh Mountakha yàlla na fallu si barkeb Serigne Fallu raditu anil mawla taala allazi rabba wadi wa anani